sélectionneur national Aliou Cissé Babou ma bàyyi la ak euh, Pape Fall. yow Pape dégg réaction yi nga xamante ne Aliou Cissé wax na ko déploré na li nga xamante ne moo di con euh, euh, heure bi ñu gars yi programme yenn li nga xamante ne mooy maanaam 23 jours yi nga xamante ne en fa lañ ko yemale de même ko tamit wax na maanaam manque supporters yi nga xamante ne dañoo war a ute compétition match contre contre Soudan. waaw mais xam naa xam nga la chose la plus importante c'est l'intégrité des joueurs. Mm-hmm. donc balaa ñuy wax affaire football ak yooyu dañuy xool déjà la santé des joueurs. Mhm. y a des heures yoo xam ne mu ngi ciy jouer ça risque d'amener des blessures graves aux joueurs te joueurs yi sont des professionnels ils appartiennent à d'autres clubs ils appartiennent à clubs yoo xam ne ñoo en Europe. Mhm. si on les amène y a qu'il y ait des blessés des trucs comme ça après il y a des problèmes après sur le fait de les revenir en sélection ou bien des problèmes comme ça. Mhm. ça c'est ça c'est une solution boo xam ne c'est que parce que heure yooyu du football. Mm-hmm. parce que à 14 heures vraiment avec le soleil qui et tout vraiment du ay heure yoo xam ni gars a football. Mm-hmm. c'est pas la compétition donc mm-hmm. loolu c'est pas c'est pas normal par contre par rapport aux 23 jours dont on parle moi je crois que 23 jours yi pour pour moi les 23 jours ça suffit vraiment sérieusement pour augmenter encore le nombre et l'amener à 26 c'est ça 26 ou 28 je sais pas. 26 cest c'est que.

concentrés que bu ñu nekkee ay 26 ay 28. Mhm. là ici il a 26 28 joueurs il y a que des frustrés dedans. parce que le joueur qui vient en sélection. pendant toute une euh, CAN ba pare ils n'ont même pas touché le ballon la dernière fois mooy dernière CAN bi mooy suñu premier match ak deuxième match bi yëpp presque suñu six ba sept joueurs fekke wu ñu nga xamante les deux matchs. lan moo tax parce que dañu amoon effectif plus de vingt six joueurs. Ah